ma feggoo ki nga xam ni nag mooy jëriñ sa deex cuun kii ma toogal day kenn si njabootu sëriñ bi waaye day kenn si njabootu soxna Daba Mbacké moom Cheikh Mamadou Basir yaakaar sëriñ Moustapha moom Cheikh Mamadou Basir ànd ak ñun liggéey bi nag bàyyi ko Turquie Touba Turquie ki nga xam ni mooy seen coordinateur ànd ak ñun ci émission nan ko waxtaane ñëw ñu màggal si sa dex asalaamaaleykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي فالو نيغي لاي شار بو باخا باخا باخا باخ دي رافاتلو انفيتاسيون بي واخ دغ يالا سنزوم تي في دي لين جار لين بال واخ تي لين بالاخ دي رافاتلو انفيتاسيون بي واخ دغ يالا تي ني نيوكو امالي اك في نيوكو امالي موي ماغلو بروخان دي زيار جامبار دي سيرن توبا سيرن منتخا كوم نينكو واخا دي نان يالا ياغال كو في اك راكوم يو باخ ييب اك سونو سانغ بيغا خامتاني موم لا نيو نيكال في تي بروخان موي سوندا مباكه بن شاوندال فادال di ñaan suñu borom wéral ko sàmm ko aar ko ba fépp fu mu bëgg a liggéeyal maamam suñu borom tawfeexal ko mu àggale ko na mu ko bëggee barke borom Touba. Serigne Sadekh damaa gis euh, organisation bi ren màggalu Poroxaan nga taxawu si taxaw bu doy waar bu mucc ayib muy préparation màggalu Poroxaan kër soxna Daba Mbacke mu sëñ Fallou stratégie boobu damaa gis may yàgg liggéey ak yow nan nga ko waajale ak nan nga àndee gars yi ñëw màggal si Poroxaan. waaw Baye Sidi màggalu gi comme ni nga ko euh, leerale dafa nekk loo xamante ne bi dañuy delloo buum ca booy booy ga stratégie bi bi nu ci liggéey it mooy bi nga xamante ne bii moom ngeen ñu xërtaloon diñu ci diñu ci diñu ci taxaw ba tey fépp fu nekk du nekk ci lenn loo xamante ne bii lu liggéeyal Serigne Touba la liggéeyal Cheikh Mouhamadou Fadal la màggal gi nag ren dañ koo waajal ci wàcc wàccaay wu am am solo maanaam ci wàccaayu jaayante ak sëriñ bi ci fànn yëpp maanaam wàccaayu doole yi poos ak doole yi doole yi doole yi doole yi biir ba looloo waral tawfeex gi ñu ci am demee ci nag ak xel moo xamante ne bii wax dëgg yàlla mucc na ayib def benn entente benn benn benn benn suuré wu benn suuré boo xamante ni bii ngir lan màggal gi jëm kanam ngir ñu mën a song li nga xamante ni moo nekk suñu kanam màggalu Kazu Rajab bi kon gars yi équipe type lañ ci àndal boo xamante ni bii ay jëwriñ lan ci biir kër Soxna Dala Mbàkke bi incha Allah faadal ñu jël lépp jébbalaat na ko ngir ñu taxawu coordonné li nga xamante ni mooy màggalu Poroxaan 2020 te defe naa ne réussite am nañ si réussite boo xamante ni jëm na 100 pour cent la mais am nañ si réussite 80 pour cent boo xamante ni bii mbokk teg nañ seen bët di ñaan suñu borom kasara gi ñu jëm suñu borom toofeexal ñu ba lépp fépp fu ñu fa bëgg a àgg ñu àgg fa barke borom Tuubaa. jërëjëf Serigne Sadekh Thioune loolu nga leeral si wàccaayu màggalu Poroxaan ànd ko ak daayira soxna da ba Mbacke bintu Cheikh moom dal Fadal ñu gis ni da ngay dem bitim réew bu ne bitim réew na ngay dem dëkk bu ñuy wax Touba Turquie Turquie muy dëkk boo xam ni euh, sunu jàmbaar ja Seydina Muhammadu Rasulullah bokk na si histoire am si lislaam nga nekk fa di nekk jàmbaari Serigne Touba waaye nekk fa jàmbaari Cheikh Mamadou Al Bassir ba mën na noo wax ni tey jii sa taxawaay bi nga ñëwee dikkaali nga ak anam yoo xam ni daayira Touba Turquie bi nan ngeen waajee ba indi adee ji Serigne Touba Cheikh Mountakha waaw Basir li nga wax noonu ñu ngi ciy profité wàll ci occasion bi di siyaarale jëwriñ xam ne moo jiite daayira Kanzul Muqtadi la Touba Istanbul bi nekk Turquie muy sëriñ Amdi Gueye di ko ziar ak bureau bi mu àndal di liggéey yëpp comme noonu nga ko leeral noonu la demee noonu ay ndaw lan yoo xamante ni bii dañoo tàggatu ci biir keppaaru Soxna Mbàkke bin Cheikh Amadou Fadal ba loolu waral fépp fu ñu dem ci àdduna bi dañuy jàpp ne liggéey Sëriñ Tuubaa rek ki leen war a nekk dañuy jàpp ne sax foofu wutum koom fa liggéey Sëriñ Tuubaa moo ñu fa yóbbu ba loolu waral bi mbokk taal bi yëfa nekk wax dëgg yàlla dimanche ju nekk ñu daje ci kër Serigne Touba ga dajale addiyee Serigne Touba ji at mënuñu jébal ko Serigne Mountakha ba barki de moo njaay ci mois de décembre lañ jébal addiyee Serigne Touba ji démb ñu ànd ak daayira soxna jaara bi nga xamante ni moo fa nekk soxna Roxaya Thiandoum jiite ko ñu yóbbante ñu lu toll addiyee valeur bi toll ci 2 millions 500 ñu ay jàmbaar ñu leen ñaanal ñoom it soxna yooyu suñu borom toofeexal leen ak confiance bi ñu ñun yàlla ko ko Serigne bi teggi mukk barke borom Touba ñu jël addiyee ji dajale ko jébal ko Serigne Mountakha mu ànd ceeg tawféex ak xel mu dal ak xol bu set lool Mbàkke Balla moom it ñu ñaan Sëriñ Tuubaa yàgg fee ñëw yàgg ko fee fekk yàgg koo jëbal addiya ji daayira turki bi nag comme noonu nga ko waxee noonu la demee ay ndaw yu fa nekk di liggéeyal Serigne Touba di xencu liggéeyal Serigne Touba bi nga xamante ne bii moom rek moo nu mën a jëmee kanam. ba looloo waral lépp loo xamante ne bii Serigne bi woote na ko rek ñu fas yéene ko ànd ak bi ba mu jeex tàkk tàkk tàkk turki nag. ndaw ya fa nek yemuñ ci wuri fa alal dong dañ koo booleeg liggéeyub Serigne Touba bi nga xamné mom mënu ñoo dem bayiko mënta dem bayinu nu ba lolo waral lepp lo xamanteni bi Serigne woose na ko rek dañ ci and ak hmm. euh, Serigne bamu jox tak tak tak tak takk. jeuf Serigne Sadekh yaangi and ak sa télévision Senzoom TV fi Senegal, Sénégal waaye nag fii si Njaareem euh, di wër aduna partout dans le monde euh, di liggéey di liggéey réewum waaye di la laaj ni nan ngeen di waajal Kazu Rajab waaw comme ni ko waajale ci màggalu Poroxaan gi rek mbokki taalibe yi daje ñëw jëbal addi sëriñ bi noonu la ñu koy waaje waatit mbokki taalibe yi nga xamante ne ñoo fa nekk dey coordinateur dana si sëddu tur ku demee ne que ba Basirou Gueye ak sëriñ Baye Ngagne Thioune ak sëriñ Basirou Thioune mbooy mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo fa nekk jamono ji war a li nga xamante ne bi mooy addiyee sëriñ Fallou ñi nga xam ne moom lañ fa yéenee dajale ngir waaja ci li nga mooy màggalu Kazu Rajab incha allah le de mars bii ñu nek ñuy ñaan suñu doom yóbbu na jàmm ak salaam ba lépp luñ ci bëgg a def ñu def ko ci nañu ko daan defee at mu nekk sëriñ bi nangul ñu ko màggalu Kazu Rajab nag comme ni ñuy waajale yeneen bis yi lañu koy waajalee wala mu raw ko ndax sëriñ Fallou moom daa nekk koo xamante ni bi daa man kanam man ginnaawam kon defe naa ne day kenn koo xamante ni lu waay def ci bisam sa bopp nga ko defal ndax comme ni ko mag ñi di waxee ku mën bis ku ku a faj bisub jaamur sa bis sa fa toox kon màggalu Kazu Rajab lu ci sa bopp nga ko defal kon ñoo ngi soññaat suñ coordonnateur yooyu nga xamante ne bi ñoo nekk fee ngir addiya ji nga xam ne at mu ne dañ koy dajal di ko andil Soxna Daba fii ci Njaareem wax dëgg yàlla ñu ngi leen ci lancer walla message ci seen télévision bi nga xamante ni mooy seen Zoom TV ñuy ànd ak moom di rafetlu liggéey bi nga xamante ni bii mi ngi koy liggéey ci lépp loo xamante bi bii soxlay doomu aadama yi la kon ñu ngi leen ci lancer walla message ngeen gën a bàyyiwaat xel màggalu Kazu Rajab gi ndax mi ngi suñ kanam te yegsi na te lan la fa faran def xam nañ ko jàpp nañ ko kon li ci des mooy génn àddee ji ñu mën koo waajal nañu ko daan waajale jërëjëf sa Sadekh ngeen ànd ak seen télévision seen Zoom TV doon def jataay bi si Touba poroxaan nga xam ni dëkk Soxna Jaara bi di ndeyu mbër di ndeyu mbër Soxna Jaara kon Serigne deex fooy tàggoo si Soxna Jaara waaw fi may tàggoo moom daanaka mooy foofu nga daaneel léegi moom Soxna Jaara moom mooy ki nga xamante ni bi Serigne Touba dafa wax ne képp koo xamante ne bi ñëw nga ci dëkkam bi boo ma fekkul boo fi toogee ab diir ma fekk la fi dellu wax ne lépp lu ma waaye di ñaan jaare ko ci soxna jaare moo gën a gaaw kon defe naa ne fii ñu nekk tey daje fi lañuy ñaan tele bii nga xamante ni moom lañ jàkkaar loolu satellite bi gaaw dugg léegi léegi léegi léegi léegi barke Serigne Touba leen ko ñaanal suñu borom tawféexal leen ko ak bépp jullit boo xamante ne bi am na ci yéene wax dëgg yàlla di rafetlu invitation bi rëy na ci ñun lool lool lool lool lool ñu ñaan suñu borom ñu fekke fi déwén fekkee waat màggalu Kazu Rajab nga xam ne moo nekk suñu kanam ban daje njaareem it di ko fa defee nii nga xamante ne di sant ci invitation bi wax dëgg yàlla rafet na lool sedd na suñu xol la ñaanal yow suñu borom fépp foo bëgg àgg ci liggéeyub Serigne Touba bi rawat na ci média bi nga xamante bi ci nga nekk yàlla suñu borom àggale fa dem nga doon ay directeur télévision suñu borom mën na ko yàlla na ko def barke si bis bi nga xam ni mooy bisu maam jaara waajuru so Serigne Touba Cheikh Ahmadul Khadim ñu nekk nag fii nga xam ni mooy kër Soxna Daba Mbacke bintu Cheikh Mamadou Fadal ànd fii ak benn daayira boo xam ne ñu ngi bàyyi ko njaareem kër Cheikh te seen jëwriñ tudd Ndey Jóob kamara ñëw nag fii si màggal gi Ndey Jóob asalaamaaleykum. ah sëñ Fallou maaleykum salaam ñoo ngi lay ziar. Ndeye Diop nan ngeen waajale màggal gi ak lan mooy seen euh, taxawaay si màggalu soxna Jaara gi. waaw nin ko um, waajalee alhamdulilah rabil alamin la ñuy wax di sant yàlla ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci Seydina ma salallaahu alayhi wa salaam di sant Serigne Touba Mbacke mi nga xam ne mooy sunu wasila di sant Serigne Touba Mbacke mi nga xam ne moo ñu boole ak Serigne Fallou Mbacke. di sant Serigne Touba mi nga xam ne moo ñu bawle ak soxna Daba Fallou Mbacke mi ñu koy wax man dama naan du ma ne jigéen ju mën goo waaye dama ne euh, sët la boo xam ne daanaka ñun soxna jaara lañ koy xoolee ndaxte doxinu soxna jaara rek lay doxe ndey nan ngeen waajalee bis bi màggal si. waaw bi ko waajalee moom alhamdulilah rabil alama lépp a yomb lépp yomb waaw parce que. lépp li nga xam ne woon soxla nañ ko ci soxna jaara ak daayira bi préparé na ko lépp loo xam ne matériel la ak lépp loo xam ne ay lekk la lépp loo xam ne daal mën nañ koo jëfandikoo fii ak ci côté santé yépp maanaam yo sëñ Touba yombalal nañ ko soxna Daba Fallou yombalal nañ ko ba ñëw fii ci bisimilah rahmaani rahim te defe naa ne incha allah rabi ñun ñëpp dinañ ñibbi ci alhamdulilah rabil alamin amee ah, dama gis nga mobiliser mobilisation bu yaatu <laughs> ah, indi fii li nga xam ne mooy croix rouge. taxawaay ak mbooloo mi nga àndal. loo si jublu. soxna Daba bu ne woon ma taxaw sax téyel ko sàkket bi wala ma téye fi bàkk Seydina Mohamed ma def ko li ma ci jublu rek mooy kom li ma la wax soxna Daba dafa doon kenn ci ñun koo xam ne royukaay la. ñun ñëw nag ñun ci côté santé bi nga xam ne moom la ñu yëngatu ñëw indil ko ko rouge pour bëgguñu fi kenn koo xam ne dafay feebar bëgguñu fi kenn koo xam ne Euh, daf euh, dara da ko fiy metti daal moo tax ñu jël sunuy moyens yi nga xam ne malgré moyens yi bëriwul ñu ñëw daal di lëkkaloo ak saxna Daba ak yow mi di sëñ Fallou di jëwrinam boo xam ne kenn nattablatu ko ci sa baax ak sa yaru ak sa bëgg sëriñ Fallou ak sa bëgg soxna Daba ñu ñëw fi bañ nag ku fi sonn ak ku fi fatigué wala koo xam ne aussi dafay yaram bi dafay tàng wala dara moo tax daal ñu ñëw ànd ak soxna Daba Fall ci këram gi fas yéene ko fi di ko màggal ay ati at moom mu nuy jiite ay ati at. jërëjëf kooku mooy day Diop kamara di soxna soo xam ni ku bëgg dëkkam la ku bëgg région de Diourbel la nga xam ni day yëngu si politique nga xam ni boo ko gisee muy dem bu laaj Diourbel rek ko ñor mobiliser na mobilisation bu mag indi na fi croix rouge joxe fi ay garab. indi fi ay base indi fi matériel kon nag Ndeye Diop ñu ngi lay ñaanal gudd fan gu ànd ak wér yaram waaye di ñaanal sa sëriñ. ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko gudd fan ak tawféex defal lu ko wees njottam bu fekkee ne ñaareel nag moo gën ci moom yàlla na ko yàlla def. jox waaw màggalu soxna jaareel la de. mu benn problème. rahmatullah ñu continuer ànd ak sunu télévision Senzoom ñu ñëw si màggalu Porokhane 2020 ñu ngi si ëttu Serigne Fallou mbake moom Cheikh Mamadou Al Basir. ànd ko ak jëwriñ ji nga xam ni moo yor wàllu liggéey ñu gën koo xam si sëriñ fàllu ñi ngi mu nekk euh, Ndakaaru a jëf nag jëf joo xam ni taxawaayam ak daayira bi lépp àndoon nañ ko jëf sëñ Fallou asalaamaaleykum. aleykum salaam ñu lay ziar sama sëriñ maa lay ziar bu baax a baax. sëñ Fallou daayira bi nan la taxawee. ah daayira bi ni mu taxawee lu dul daayira sëñ Fallou mu sëñ Basiiru la ñu ànd di si liggéey doon ay taal ndongo yoo xamante ni dañoo nekk dakaar di ndong sëñ Fallou mu sëñ Basiiru di ndongo soxna Daba mu sëñ Fallou sëñ bi boole ñu ñu nekk dakaar di gisante taxawal daayira si ndigal yi nga xamante ne nag mooy ndigal ndigal yi eh, yim ñu jox bii bokk na si mooy liggéeyu Porokhane bi daayira bi noonu taxawee Alassane Diop mooy jëwriñ bi sëriñ boobu mooy trésorier bi man maay secrétaire général bi ak yeneen membre yoo xamante ne ñi ngi fii ñoom ñëpp di góor a jigéen ñu ànd si ñun ñuy góor ànd seeg suñu ay soxna waaw di déglu ndigal di ko jëfe waa tey bu ma la doon laaj kenn mooy Serigne Fallou Mbacke moom Cheikh Mamadou Bassir loo may wax. sëñ Fallou Mbacke moom sëñ Bassirou moom sëñ Fallou mu sëñ Bassirou ab ndongo la boo xamante ni mën naa wax ni dëkk ndar màgge njaareem diggante njaareem ak tawféex dogal tamit ma juddoo ci keppaaru mag moo xamante ni magu daaru Minam la ñu koy wax Mamadou Ñing mu nekkoon jëwriñ ca ndar. doon jëwriñ sëñ Basiiru doon jëwriñ sëñ Moustapha Basiiru nekkoon ci ndax teewal ka fa man foofu laa meññoo mu jóge fa jébal ma sëñ bi ma ñëw fii njaaram fekk si ka sëñ bi di liggéey ak moom booba léegi nii. Serigne Fallou danga tudd jàmbaar joo xam ne mooy soxna Daba Mbacke moom Serigne Fallou te gis naa ni dafa mel ni mooy seen jëwriñ si liggéey bi nan ngeen àndeek moom di liggéey màggal gu toll nii. soxna Daba day kenn si ñun. koo xamante ni mën naa wax ni amul kenn koo xamante ni ku toll na moom la di doomu sëñ Fallou Mbacké di jàmbaar fonk taalibeem yëg ko dégg nga ba pare nag fonk nit ñi fonk taalibe yi namm si ñoom lu mag a mag loo xamante ni ñun yaakaar naa ni mënuñu ko sax matale ndax saa su nekk daf ñuy soññ soññ boobu mu ñuy soññ day gën a tax ñun ñu liggéey ndax maanaam moom daf ñuy liggéey loolu ndax amaana tey bu ñu bëggoon liggéey si bi euh, si si kër bi te amuñu koo xam ne ku ñuy soññ la wala amuñu jëriñ mel na moom li ñu bëgg a liggéey amaana duñ ko liggéey moom nag muy koo xamante ni kenn la ñu ànd ak moom jox suñu lépp di góor jox suñu lépp muy suñu ay soxna jox ko suñu njaboot di ko déglu nag ci ay bisam taxawal ko ci nag di xool saa su nekk loo xamante ni mooy li bëgg ñu koy jëfe di xool saa su nekk ay bisam li koy yàq ñu koy moytu di xool saa su nekk li nga xamante ni mooy lii gën defar ay bisam ñu si waxtaan di xool ni ñuy def ba saa su nekk muy gën taaru ndax boroom mbooloo la kilifa la te nit ñi am na fu ñu ko teg te bëggul benn taalibe bi am lu la métti kon nag kooku boo àndeek moom da nga koy bàyyi xel bu baax di ko déglu moo tax lépp lu ñu def si moom du doy. kii ma taxawal euh, mooy Serigne Fallou Gningue nga xam ni mooy coordinateur. daayira Serigne Fallou Mbacke fee sa Ndakaaru ànd kook soxna yi ànd kook jëwrin Alsane Dieng ak ñi mu ko àndal. ñu ànd xam ni mooy Serigne Fallou ñu ngi ñu ngi taxaw ki nga xam ne mooy jëwrinu daayira bi di jëwrin Alsane Dieng sëñ Alsane ñu ngi lay ziar. ñu ngi leen ziar baax a baax sëñ fallu bu baax a baax te di la nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Fall nan ngeen àndee liggéey bi ak daayira bi ba taxawal lu mel nii. waaw ñun dañuy jëkk sant sëñ Fallou moom sëñ Bassirou euh, bu baax a baax ndax itam liggéey bii dafa doon loo xam ne xëy na neex naa am waaye jafe naa am te ñun ay taalibe lañ ay dongo sëñ bi la yoo xam ne ñu ngi Ndakaaru waaye jegeleelu sëñ bi ak mbaaxu sëñ bi moo tax mu ne yéen waa daayira Ndakaaru euh, yéen laa féetale màggalu Poroxaan mu doon lu lu rëy lu kowe loo xam ne euh, ab cant rek lañ si mën a def Eh, ba tax na nak at bu nek depuis ba amé légui léegi war na tolloog lu tolok xana fukkat wala lu ko jege saa yu ñëwee né ko sëñ bi ba bëggee mooy àllarba alxames euh lu ko tàmbalee su xorom ba si nak ñun ñi la war te sëñ ba ngi si dimbalé ba ñu ngi koy matale da si am gëreum bare atum ren ji te ñu ngi ñaan bu suwa bu ñu yewi ngeureum lañ da am ñu amaan ngeureum li rek lool dal mom eh, dika ko ànd ak ko jagleel sëñ bi la itam muy soxna Daba moom sëñ Fallou mooy borom waañ mi ndax boo naan dëggantaan borom waañ mi nag soxna Daba moom sëñ Fallou la ndax damaa jàpp ne sëñ Fallou moom sëriñ Bassirou dafa am jagleel jagleel mooy li mu tudd sëñ Fallou ñu jox ko taxandooru sëñ Fallou mu doon itam ki nga xam ne moom mooy borom njaareem te buñ ne borom njaareem suñu xel yëpp sëñ Touba la jëm ndax sëñ Touba lañ daan wooye borom njaareem te sëñ Fallou Bassirou doon na borom njaareem. si dëkkinam si nekkinam ak yore fulku ba nekk si kër gu màgg si ndigalu sëñ Muntaxa moom sëñ Basiru kon boog ñun sant rek la ñu war a def. jërëjëf euh, sëñ Alsane Dieng jërëjëf Serigne fallu Gningue kon loolu mo donon euh, tay seen jataay émission bi nañ ko waxtane la tuddu waye nak dono and ak sun cameraman ñew fi nga xamni moy magalu Soxna Jaara and ko nak ak njabootu Serigne fallu mum Cheikh Mamadou Al Basir rawati na nak seen jambar jooju ngeen tuddu muy Soxna Daba Mbacke mum sëñ fallu kon jëwriñ alsan ñu ngi lay jaar di ñaan mm, fekk déwén. waaw xanaa luma ci si bëggoon rek. ab tiant mom ab tiant la. ndax it ginnaaw ñi nga xam ne lañu sëñ bi boo maanaam ñoo ñooñu njaboot sëñ bi dafa ñoo xam ne dañ ànd ak ñoom si liggéey bi mooy daayira sëñ Fallou mi nekk Ndakaaru ànd ko itam ak daayira soxna Daba bi nga xam ne ñoom ñoo ne féete woon njaareem te ñoom ñii bu ngeen gisee mbooloo mi fa nekk ñoom la lépp loo xam ne logistique la itam ñoom ñoo ko indi jàppale ñu si ndigalu soxna Daba moom sëñ Fallou di si sant itam bu baax du politique parce que ñun nekkuñu njaareem waaye dañ si sant monsieur le maire député maire bu Ndiarème Malick Fall si taxaw bi nga xam ne mu ñu koy taxaw itam di indi liggéeyam su suñ koo liggéey di ñëw itam ñu nemmeeku saa su ne ba sànq la fi jóge kon la tam cant moom war war nañu si képp koo xam ne yaa ngi jàpp si liggéey bi loolu rek laa si bëggoon dolliwaat sëñ Fallou mi nga xam ne moom si magum taalibe la doon secrétaire bi moom yaakaar naa kàddu yëpp wax na ko bu mat sëkk man day ma see boole ndax jawrin laa faaw sama kàddu jëg si waaye sant na ñëpp gërëm na ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. jërëjëf seen télévision seen jour.